Euh, comme tous les 15 jours, pour vous présenter Impression, le magazine du livre et de l'écrit que la 2STV vous propose tous les jours. Au sommaire d'aujourd'hui, le livre de Nina Wad, un récit, Deux femmes, trois âges. Et puis, euh, nous allons aussi parler de Ma mère, le livre du docteur Shirti Yanso, et euh, Bantiki Doukouré qui vient nous présenter son livre Sans domicile fixe, l'autre visage de l'Amérique. Alors, sur le plateau déjà, nous allons commencer par euh, Nina Ouad, c'est son nom d'écrivaine, mais il y a déjà euh, Cherti Yanso qui est sur le plateau, qui va donc assister à cette causerie avant qu'on euh, parle de son livre. Alors, euh, Minata, vous avez choisi comme nom euh, d'écrivaine euh, Nina Ouad, votre premier livre d'ailleurs a été signé sous ce pseudonyme. Alors, euh, ce livre, Deux femmes, trois âges, alors, met en scène, en fait, vous mettez en scène dans ce récit trois femmes, et un homme, mari polygame, qui est, qui est, qui est un peu au milieu de la tourmente, mais aussi qui crée cette tourmente-là. Alors, donc, c'est des femmes qui ont bien réussi dans leur vie professionnelle, ce qui leur donne une certaine aisance et une liberté aussi de choix. Elles sont toutefois confrontées euh, dans leurs relations matrimoniales et puis euh, dans leurs relations euh, personnelles, amoureuses tout simplement, avec les hommes, à des situations qui sont compliquées par la société, dans ces principes, par aussi les principes religieux et surtout par la polygamie. Vous l'avez parfaitement résumé. Hein? Oui. <laughs> Merci pour cette invitation. C'est un plaisir pour moi de revenir sur le plateau. Je salue les invités également. Euh, c'est une nouvelle intitulée Deux femmes, trois âges. Mais en fait, il y a trois femmes. La troisième, intervient au dernier moment. Avec euh, au centre un homme Mhm. Souvent, c'est l'homme qui est le centre de la préoccupation oui. pour les femmes. <laughs> oui. Et euh, au départ, on ne peut pas vraiment savoir exactement où on va arriver parce mm -hmm. qu'on commence par l'amitié de oui. deux amies qui sont très différentes de nature, mm. mais qui sont très liées depuis, depuis qu'elles sont enfants. Chacune évolue et comme vous l'avez souligné, elles réussissent sur le plan professionnel. Chacune travaille, chacune peut se prendre en charge. L'une s'est mariée, oui. elle est deuxième femme. Oui. L'autre n'arrive pas à se marier. Ah oui. Euh, Jusqu'à la toute fin, elle n'arrive pas à se marier. Alors, celle qui est deuxième femme, au début, tout se passe très bien parce que c'était la préférée. Oui. C'était la préférée. L'eau a coulé sous les ponts. Un beau matin, elle devait accueillir une troisième femme. Oui. Voilà. voilà. Et euh, cette troisième femme l'a beaucoup, beaucoup, beaucoup perturbée. Voilà. Euh, de, de, de voilà. Elle a complètement oublié qu'elle-même, elle est arrivée dans ce mariage polygame mhm. euh, en dérangeant une première qui était bien installée. Oui. Mais euh, elle refuse, oui. paradoxalement, qu'une troisième puisse venir et puis faire ce qu'elle a fait oui. à la première. C'est tout le paradoxe de, de, cette relation-là. Un et... ami qui est passé à la maison, qui m'a trouvé en train de lire ce livre, je lui ai dit ce que j'en retiens, c'est que les femmes, tant qu'elles sont là, euh, ça ne les gêne pas, mais euh, c'est qu'une autre les retrouve dans le mélange. C'est à ce moment-là que c'est un peu le thème du livre. C'est exactement hein? ça. C'est ça qui est inadmissible est pour elle. C'est inadmissible. Elle parle comme si elle, elle était dans une relation, relation monogame. Oui, c'est voilà. ça. Alors, on voit donc la position et la réaction des femmes. Euh, quand euh, le mari veut prendre une nouvelle, alors pour elle, c'est tout simplement une infidélité. C'est comme ça qu'elle voit ça. Oui, c'est paradoxal. C'est comme ça qu'elle le voit. Sa réaction, oui. Parce qu'elle ne s'y attendait pas. Oui. Elle ne s'y attendait pas. C'est vrai que quand on va au niveau de l'état civil, oui. L'officier nous demande toujours euh, quelle est l'option. Ce n'est pas nous. La question, elle est posée uniquement au mari. Oui. C'est lui qui souscrit à cette option. Oui. Mais une fois qu'on a mis polygamie limitée à quatre femmes, on a presque oublié qu'on a signé cette affaire-là. Oui. Parce qu'il y a l'euphorie de s'être marié du côté de la femme. Mais on dirait qu'il y a euh, cette, euh, cette signature-là qui reste dans la tête de l'homme. Un beau matin, il peut faire activer cette clause-là. Oui. La femme, elle a tendance à l'oublier. Oui. Et les premières, elle oublie qu'elle a signé ça. Et les deuxièmes, elle oublie qu'une troisième peut venir. Et les troisièmes, elle oublie qu'une quatrième peut venir. Je pense que naturellement, on est comme ça, hyper jalouse. Et euh, c'est un peu paradoxal. Ah, je Mais c'est intéressant à étudier pour savoir pourquoi en fait on a ces attitudes-là. C'est ça que j'ai essayé de creuser. Amnésique dans le bonheur. Et voilà, c'est intéressant à, étudier. Et euh, Elle, ce qui est particulièrement euh, bizarre chez elle, c'est qu'elle se toujours, celle-là, ce une jeune fille et elle va me déclasser en oui. vieille femme. Mais mais elle se voit dans la peau d'une vieille femme. Elle s'imagine son mari marier une jeune fille, peut-être de 18-19 ans. Elle ne pourrait pas soutenir la comparaison. Or,

à ses trois, même quatre épouses, pourvu qu'il m'aime toujours autant. Et je Et par là, son ami, hein, il lui dit, euh, il ne dit jamais plus jamais, il est africain, ne gaspille pas, je t'aime, <laughs> en riant. Et puis, le sait, mais je n'ose plus lui euh, demander. Je n'ai que 36 Merde, dit-elle, excuse-moi, mais je ne peux pas renoncer si à l'amour, n'est-ce pas Et puis plus, loin, car l'amour ne va plus de soi, cet amour a vieilli, s'il ne veut plus m'aimer, je vais divorcer. Rapidement, il prend la décision, mais parce qu'elle a les moyens, tout simplement, elle a de l'argent. Et là, on voit que les femmes qui subissent ce que le mari décide, c'est parce qu'elles sont emprisonnées par leur situation financière souvent. Oui, très souvent, Euh, c'est la réalité, surtout dans nos sociétés. Peut-être pas à... Mais en tout cas, euh, ce problème-là, moi j'ai voulu un peu montrer que la femme a tout intérêt, même quand elle est mariée et que tout va bien, à avoir ses propres biens. à avoir un petit filet de sécurité. Parce que ici, c'est elle qui veut s'en aller. Oui. Mais parfois, c'est le mari qui se lève oui. et puis qui trouve une autre femme et oui. qui fait tout son possible pour faire partir euh, celle qui était là. Et quand elle ne part pas, elle vit un enfer. Donc, il faut pouvoir... <laughs> Donc, quand c'est lui qui ne veut plus, c'est vraiment compliqué parce que on dit que les hommes, ils, ils peuvent, ils sont très entiers. Ils ne peuvent pas vraiment euh, faire comme les femmes, ne plus aimer un homme et puis rester avec lui quand même. Ça, la femme, elle peut le faire sans oui, problème. Oui. Mais pour l'homme, c'est problématique. Quand l'homme n'aime plus du tout une femme, il essaie tout de suite de mettre fin à la relation, même oui. s'il y aura beaucoup de dégâts par la suite, il le fait. Sans Et la femme, sans état d'âme. La femme n'y arrive pas en général. Alors, vous avez utilisé un terme qui, qui m'a fait rire. Vous dites mémérisation. C'est quand le mari vous parle comme si vous étiez sa sœur. C'est un peu ça C'est un peu ça. <laughs> Euh, Awa Yaye ça mmh. résume ça mmh. on est la maman de tout le monde même la maman de son mari oui. la maman magnanime qui pardonne tout oui. ce n'est plus une relation euh, de conjoint ça devient une relation de, de maman qui passe tout à son bébé oui. le mari veut garder cette image de bébé qui doit être pardonné quoi qu'il fasse et euh, ça l'arrange beaucoup la société joue avec ses ces façons de, de, de contourner élégamment le fait que le mari a, a ils ont mis sur la touche sa oui. première épouse en disant voilà tu n'es plus sa femme tu es comme ça maman en vérité et tout mais ça fait très mal ce sont des, des, des vérités qui sont là qu'on essaie de d'édulcorer fortement mais moi j'ai voulu le dire comme ça se ressentait chez certaines femmes comme une trahison impardonnable et la première quand ça lui est arrivé elle a elle a trouvé refuge chez sa maman avec qui elle avait des relations très très très heurtées mais tellement elle a été blessée dans son amour propre par le fait que son mari, malgré que c'était une très belle femme, ait pris une deuxième, mhm. elle a, elle, a, elle a fait appel à sa maman qui est venue à son secours. Elles se sont réconciliées à cette occasion-là parce qu'elle avait un besoin immense de consolation. Et c'était une femme très forte, mais ça l'avait cassée. Mmh. Mais après, avec euh, l'aide de sa maman, il est reparti. Aussi, les mères sont des figures titulaires. Mmh. Ça rejoint un peu le sujet de votre livre. Oui. Une maman est capable de, de, rattraper un mariage qui était en train de sombrer. C'est ce que sa mère a fait. Euh, la deuxième n'a pas eu cette chance. Quand elle, elle a... Euh, C'était son tour de passer à la casserole, en quelque sorte, <laughs> avec la troisième. Oui. Elle était en France, elle vivait seule avec ses enfants. Elle n'a pas pu trouver euh, cette, euh, cet entourage qui vient jouer le rôle de, de pompier qu'on a ici souvent au Sénégal. Euh, à l'étranger, c'est très dur parce oui. qu'on est isolé. Donc elle, elle l'a vécu euh, comme, euh, comme le vivent les, les euh, euh, comme les Blancs. À un moment donné, quand elle raisonne, elle parle, elle ouais. compare un peu avec ce qui se passe euh, là-bas. c'est une conception judéo-chrétienne, donc c'est complètement différent. Malgré qu'elle est deuxième femme, elle sait que c'est à cause de, l'islam qu'elle a pu avoir son mari, parce que c'est autorisé, mais en même temps, elle subit l'influence de la société occidentale. Donc elle se dit, non, c'est l'amour, c'est l'amour, c'est l'amour. S'il ne m'aime plus, je veux plus rester avec lui. Ce pas une conception purement sénégalaise. La base du mariage au Sénégal, ce n'est dans les temps. <laughs> <laughs> Peut-être le, la génération d'aujourd'hui oui. privilégie ça à 100%, mais dans les temps, il y avait des mariages arrangés. Ça. Mais euh, quand même, là, il faut dire que, alors, euh, elles ont quand même, financièrement, elles ont les moyens de, de peser sur les choix hein, que, qui s'imposent à eux. Même quand, vous dites tout à l'heure, quand son mari a décidé de la faire passer à la trappe, elle avait quand même les moyens de, de réagir. Et là, quand même, cette indépendance financière lui a permis de placer au euh, ses, ses, condition ses conditions, ses critères pour accepter un homme. Vous les définissez très bien à la page 13 et 14. C'est important, vous le soulignez. Vous semblez dire que c'est bien que la femme ait sa liberté par rapport à l'homme. Absolument euh, nécessaire. Non, voilà, vous, vous, <laughs> parce que quand elle dit « je veux vraiment tomber amoureuse, me marier, admirer mon mari et tout », comment cela fait que je ne trouve personne à mon goût Il dit durant mes études, plus, plus tard, il dit je crois que mes critères sont trop élevés, trop élevés. Euh, tu veux un homme libre Moi, j'ai accepté d'être une gnarelle. Je n'y vois aucun inconvénient. J'ai fait totalement abstraction de l'autre. Tu veux un homme ibadou Moi, j'ai accepté un homme qui m'a avoué être un athée caché. Hein? Puis ensuite, tu veux un homme selon ton idéal Moi, je n'ai jamais conçu d'époux idéal dans ma tête. J'étais open et toi, tu restes coincé depuis notre adolescence. Là, c'est Anta qui parle. Oui. Anta, c'est la deuxième femme. C'est cela. C'est quand elle est euh, reprochée à Marie oui. d'avoir beaucoup d'exigences, oui. ce qui l'empêchait d'accepter de, certaines demandes en mariage qu'elle recevait, parce que c'était oui. une belle femme. Elle avait des demandes en mariage, mais elle les avait toutes rejetées. Et Anta trouve que Marie était un peu, euh, voilà, euh, elle n'était pas libérée comme elle. Voilà. Euh, sauf que Anta, elle était libérée, ok, elle a trouvé un mari, mais après, elle a trop souffert. d'avoir euh, en fait euh, euh, malgré tout malgré tout ce qu'elle avait comme atout féminin, mhm. que son mari, à un moment donné, ne voit plus rien de tout ça, qu'il se tourne délibérément pour chercher une troisième femme, même sachant que c'était en train de la tuer à petit feu, oui. rien ne pouvait l'arrêter. Oui. Pourtant, il était dans une relation belle avant tout cela, quand même, parce que euh, elle disait, je pense à son ami, la vie est tellement belle pour moi Oui, la vie je disais, était belle pour elle. Euh, tout me semble beau, le matin est beau, ma voiture est belle, ma chambre est belle, mon lit est beau, mon boulot est beau, mon bébé est plus que beau. Et je n'ose même pas dire que moi-même, je suis belle, mais j'aime même tellement que j'aime tellement tel que Dieu m'a faite, souriante, joviale, allergique aux ennuis. Et puis d'ailleurs, je suis belle. Pourquoi hein? Je m'interdis de le dire. Je suis très pulpeuse, machallah, machallah. Voilà. Ouais, elle avait Donc, trop confiance en hein, elle. Elle, était... elle avait trop confiance en oui. elle. Elle avait trop confiance en elle et je pense qu'il ne faut pas, dans la société où nous vivons, il faut savoir qu'il y a le, cette épée de Damoclès, Damoclès, qui pèse sur nos têtes. Oui. Et euh, ce type d'attitude-là, on ne l'encourage pas. Oui. Parce que, trop confiante. Oui, oui. le fait d'être trop confiante euh, vis-à-vis euh, -vis du mari, lui-même, il va chercher quelque part à tempérer cette euh, confiance en soi. Et puis, euh, voilà, c'est autorisé, c'est permis, c'est encouragé. Oui. Alors, il, il, le fait, même s'il avait tout avec ces deux femmes, en oui. vérité. Oui. Entre Anta et la première, il avait tout. Et quand il a décidé de prendre la troisième femme, il pensait avoir pris une très bonne décision. Oui. On va voir l'évolution <laughs> après mais, de l'affaire. oui. <laughs> Alors, et puis, euh, la deuxième interrogation, vraiment, le doute, quand le mari lui annonce son intention d'épouser oui. Hein, une troisième. Euh, alors, Curieusement, vous le disiez tout à l'heure, Lagnarel refuse ce que la première a <laughs> accepté quand même euh, au moment où elle épousait, parce que bon, personne ne doit venir après elle, c'est un peu cela. Elle avait une éducation un peu à l'occidental, Anta, Lagnarel. Oui. Ça, euh, moi je trouve qu'elle est inconséquente, parce que quand on a euh, cette option-là occidentale, normalement, on doit refuser la polygamie. Parce que dans ces sociétés, la polygamie, elle est interdite, strictement interdite. Voilà. Oui. Donc, on, on, on, respecte les règles du jeu tant que ça nous arrange. Et euh, quand ça ne nous arrange plus, voilà, on veut euh, changer les règles du jeu. C'est pour ça que je ne suis pas tendre avec Anta. Elle oui. souffre bien dans le livre, finalement. Oui. <laughs> je ne suis tendre avec aucun des personnages, sauf avec peut-être la première. Oui, je vous faites une sorte de gloire aux premières AO qui supportent ce que vous appelez la violence de la polygamie. Elles sont très courageuses. Vraiment, une gloire aux, aux AO. Vraiment, gloire aux AO. <laughs> <laughs> parce qu'elles ont une, résilience, une, foi en Dieu, une foi en la vie tout simplement, qui fait que Euh, elles avaient le choix de partir, oui. mais elles ne l'ont pas fait. Mm -hmm. Elles ont été courageuses, elles oui. sont restées. Et euh, pour beaucoup, oui. ça se termine assez bien. Oui. Si le mari ne revient pas euh, vers elles, euh, en tout cas, euh, elles trouveront un motif de satisfaction à patienter un tout petit peu plus pour voir la suite des événements. Oui. Alors, euh, la, la, deuxième voit l'arrivée la, de la éventuelle de la troisième. hein, euh, comme une de son statut de favorite. C'est ça en fait, la mais là, une autre doit venir, donc elle chutait. C'est ça. Elle n'a accepté la polygamie qu'à condition d'être la préférée. Moi j'ai noté qu'à la page 48, il dit j'avais la bonne position, j'étais celle à qui il consacrait des gestes attentionnés et oui. ne se souciait pas de ce Quelle oui. disgrâce. Oui. La polygamie que j'ai vécue pendant 12 ans a juste été trop facile. J'ai toujours été sa préférée, sa reine, dit-elle. C'est ça. ça. Voilà. Voilà. C'est ça. C'était la seule condition qui faisait que pour oui. elle, la polygamie ne la dérangeait pas. Oui. Dès que cette condition-là saute, alors tout est remis en cause. Ce n'est plus possible de continuer pour elle. Or, elle aurait dû, euh, elle aurait dû être plus euh, sérieuse, je dirais, oui. parce que c'est un manque de sérieux, ça. Oui. Est-ce qu'elle a le droit vraiment de refuser une troisième c est, c est, Voilà, c'est un gros problème. Oui, oui. Alors, il, il, mais quand même, qu'elle lui Malgré reste, ça. il lui reste que la résignation quand même. Elle peut rien faire apparemment là. Qu'est-ce qu'elle peut faire devant ce, euh, cette situation-là Parce que le mari lui dit, elle, euh, que peut-elle faire Elle avait le choix de rester ou de partir. Oui.

ça n'allait pas dans sa vie. Elle, elle, se confiait beaucoup à Marie et lui demandait des conseils. Et Marie oui. lui demandait toujours oui. de se calmer. Oui. Son Marie, qui a une nature très calme, elle lui disait Patiente, sois calme, tu es une bonne femme, n'aie pas peur, aucune femme ne pourra jamais te faire de l'ombrage, etc. Mais c'est comme si Marie reste, restée sourde. Parfois, elle se disait C'est bon, je vais supporter le lendemain. C'est le passage que je cherchais, mais je suis habituée à faire CTRL F maintenant. Quand je cherche maintenant sur le papier, <laughs> quand je cherche sur le papier, je n'arrive pas à voir. Oui. Euh, voilà, oui. je pense que euh, c'est là. Hum, euh, j'ai vécu beaucoup de belles choses. Voilà, je parle, je parle, je parle. Parler, c'est l'arme des femmes. Difficile de nous en vouloir. C'est juste que s'abstenir de toute critique est au-dessus de nos forces. Dire notre peine ne suffit pas. Il faut saccager la source de notre malheur, la châtier pour son effronterie, entre un mari et une femme, il n'y a pas de place pour une autre personne. Oui. Toute immixtion doit être sévèrement punie. Mais je ne veux pas devenir cette harpie. Oui. Je suis une femme chanceuse. J'ai vécu beaucoup de bonnes choses, euh, beaucoup de bons moments. Et si j'acceptais purement et simplement, et si je m'assagissais, en me consacrant davantage à ma religion, je pense que je peux m'apaiser. Oui. C'est la ligne de conduite que je vais m'appliquer à tenir. Je vais regarder quelques vidéos de conseils. Oui. Là, on la voit. Oui. Essayez de de, de, de, se convaincre elle-même par elle-même. Elle vit seule avec ses enfants. Donc, à part Marie, elle n'a pratiquement personne avec oui. qui parler et elle était en froid avec son mari. Donc, elle regardait des vidéos de conseils. Elle passait toute sa nuit à lire les, les, forums de discussion. Et ça se mélangeait beaucoup dans sa tête. Donc là, il y a deux forces contraires en elle. C'est pour ça que le lendemain, elle eh changeait d'avis. Comme une voilà. Et on voit quand même que vous insistez, j'insiste aussi, moi, vraiment sur la force des Awo. Et vous dites quand même, vous écrivez qu'ils se montent et supportent leur portion de mari. Hein, J'aime bien l'expression, <laughs> n'est-ce pas Portion de mari, comme vous dites. Euh, ben, c'est mieux que rien. <laughs> Oui. <laughs> Dans un monde qui est devenu très concurrentiel, on se contente parfois de ce qu'on a en se disant si je le perds, c'est pire. Oui. Et ce n'est pas faux. Parfois, c'est mieux de se contenter d'une portion de mari oui. que pas de mari du tout. Oui. Et finalement, c'est le mari, l'homme, hein, là, euh, on parle, c'est des femmes qui sont dans le roman, mais c'est l'homme en fait qui est, est-ce qu'on peut dire, euh, fauteur de troubles Non, enfin, voilà. Si, quand même, les, un peu. Ah oui, quand même. Si, c'est pas la femme qui vient draguer l'homme en général, c'est l'inverse. C'est eux-mêmes qui se mettent dans le pétrin. Oui. Mas, c'est son cas. Oui. Il avait tout avec la première. Oui. mais il a quand même décidé d'aller vers Anta. Oui. Et après, quand, je ne sais pas, la passion est passée, disons, oui. il a décidé de chercher quelqu'un d'autre. Or, ce n'est pas comme ça. Oui. Normalement, il y a plusieurs phases dans la vie d'un couple. La passion ne dure pas toute une vie. Donc s'il avait eu d'autres conseillers qui lui auraient, des aînés qui lui auraient expliqué c'est quoi les phases d'un mariage, comment ça évolue, comment ça peut passer d'une période de froid à une période où ça devient du redoux, les gens peuvent se disputer, rester un mois sans se parler, revenir à de meilleurs sentiments. C'est comme ça, c'est comme une mère, elle ne peut pas rester tout le temps calme et oui, Et, lui, c'est un enfant gâté. Parce quand on voit un Il a beaucoup, beaucoup réussi sa vie professionnelle et tout. Il est très généreux, c'est vrai, mais euh, c'est un enfant gâté parce qu'avec la première, il aurait pu se contenter de cette vie. Avec la première et Anta, il pouvait encore se contenter de cette vie, mais il a réussi à en vouloir toujours plus oui. jusqu'à la catastrophe. J'aime bien cette image de la mère que vous évoquez parce que justement, le mariage, oui, il faut le voir comme ça. L'amour, c'est instable. Par définition, pour comme le flux et le reflux de la vague, ça part, ça vient, parfois c'est comme ça. C'est Et euh, il faut concevoir comme ça. C'est pas un mystère, mais voilà. <laughs> oui. la polygamie, qui est une affliction euh, y a quelqu'un qui l'a dit le roman. Euh, en tout cas, quand on la page 55, mm mm-hmm. le cœur de personne n'est extensible. Celle qui entre diminue le cœur de l'homme, la part de, de, celle qui est déjà là. Hein? On vient partager une place qui était entière, hein? forcément. Hein? À quoi bon épouser une autre femme euh, Bagatelle le fait-il mieux que l'autre <laughs> et, et, euh, euh, et, En la matière, euh, la plus jongée reste la plus favorisée. Alors, euh, ce mystère perturbe la sérène, la plus sereine des femmes. Complicité, quelle complicité Vous dites complice Oui. Hein? Et puis division, on ne pourra jamais se diviser vraiment de manière juste. Et puis pauvres enfants, les victimes collatérales. Ouais, on, depuis Donc, Mariam Abba, hein? depuis Mariam Abba, <laughs> oui. on sait que c'est une injustice. Ah oui Oui, mais euh, on est dans une société où euh, la pudeur nous mm. dicte de ne pas exprimer euh, carrément les souffrances qui peuvent naître de certaines euh, situations, comme la polygamie, oui. Je respecte ça. On oui. est une société pudique, je respecte ça. Mais moi, personnellement, je pense que la masculinité, elle s'exprime mieux dans une relation monogame. Oui. Euh, entre deux personnes, entre deux points, euh, la ligne droite est le chemin le plus court. Oui. Si on fait un triangle, un rectangle, un pentagone, <laughs> c'est ça, quand on est quatre femmes avec un homme, ça y est, on est dans un schéma hyper compliqué. vraiment, on va votre, votre, opposition à la polygamie, là, quand je dis que c'est agriculture. Pour être oui. tout à fait honnête, c'est ça. <laughs> voilà. <laughs> Mais je, je, je, je raconte l'histoire de oui. manière polyphonique, oui. parce que je donne à Masse la parole. Il n'y a pas que des femmes qui parlent. Oui, bien sûr. Masse a parlé. Oui, il parle aussi. Et quand on l'écoute, Parfois, on le comprend. Oui, Mas, le ce n'est pas un monstre. Oui. Mas, c'est le mari. Oui. Ce n'est pas un monstre. Il a donné ses positions. Il a expliqué de quoi il souffrait. Et réellement, il souffrait de quelque chose. On le découvre dans le livre. Oui, on le découvre. Il a ses raisons, lui aussi. Quand chacun donne sa position, on tempère toujours la vie tranchée qu'on avait au Absolument. départ. Mais euh, il y a de la subjectivité en chacun de nous. Voilà. Moi, en tout cas, je, je n'aime pas ça et je déconseillerais ça à mon frère. Voilà. Merci, Merci. d'être venu. Je m'arrête là parce que sinon je vais dire la fin. <laughs> et vous, et vous m'avez demandé qu'on n'en parle pas. Oui, cette fin, elle est absolument. Oui, une bonne suite une, pour une nouvelle. Voilà, c'est une hein? C'est ça. Voilà. Merci beaucoup. Donc, euh, merci Amin Jafal Ninawa d'être venu nous parler. Deux femmes, trois âges. Oui. Et on voit trois âges, on voit au lycée déjà ces amis se parler. Depuis hein? l'âge de 16 ans, Donc, elle voilà. parlait des relations voilà. hommes-femmes. Et puis. Euh, elle les voyait d'une certaine manière, elles ont évolué. Voilà. Hein? Donc, c'est un peu cela. Et merci d'être venu. Nous Merci. attendons le prochain. Inch'Allah. Bon, <laughs> voilà. Merci Nous, nous, passons à de Chertidiane Sow, docteur Chertidiane Sow, ma mère. Je vous signale que sur le plateau déjà, nous avons Bantigui de Curé qui viendra en fin d'émission dans Expression libre nous parler de son livre sur les domiciles fixes aux États-Unis, l'autre face euh, des, des, de l'Amérique. Alors, Chertidiane Sow, c'est vraiment un plaisir de vous recevoir. pour euh, vous êtes déjà venu dans cette émission-là. Et euh, votre livre, Ma mère, un récit, que qui m'a beaucoup touché, évidemment, <laughs> euh, le sujet et beaucoup d'autres choses, la région dont vous parlez. Alors, vous racontez euh, des, dans ce récit des souvenirs de votre vie avec votre mère, mais tout simplement, comme l'indique le titre, Ma mère, mm -hmm. tout simplement. Mais euh, bonjour déjà, bonjour à tout le monde sur le plateau et merci de l'invitation. c'est un plaisir renouvelé de, de venir là. C'est vrai que le titre a été un peu... Euh, il est venu tout juste comme ça. Au oui. départ, j'avais pensé à, à, une mère, j'avais pensé à euh, ma mère et moi, oui. j'avais pensé à un amour de mère. Oui. Et puis en fait, ce qui est resté, c'est ma mère. Et j'imagine un peu comme euh, dans les conversations qu'on a souvent, on dit ma femme, oui. Euh, euh, il y a un esprit de possession. Oui. Quand bien même qu'elle ne m'appartient pas à moi tout seul. Hein, oui. C'est la mère de plusieurs autres personnes. Oui. Et je pense que c'est venu un peu du fond du moi. Et que j'ai voulu aussi magnifier le fait que c'est cette femme-là avec qui j'ai eu l'amour le plus fort de ma vie. Oui. Voilà. Et donc j'ai voulu la voir à moi. Oui. Vous dites, euh, il n'était pas à vous tout seul, mais quand même, vous étiez son samba, le second fils. Hein? Et oui. dans cette fratrie, il y avait que les deux garçons, son, parti tôt, il y avait oui. des femmes. Oui. Et voilà, vous étiez le garçon. Son oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai que je suis son samba, mais je pense que ce qui fait beaucoup plus la singularité, oui. c'est que j'étais le seul. Oui. C'est-à-dire que son afro est, comme je le raconte un peu, est décédé dans des conditions euh, assez difficiles pour elle. Et donc, il y a eu l'amour d'abord d'avoir un fils euh, qui venait après tant d'années de souffrance. Je pense que ça, c'est déjà quelque chose de relativement fort. Et ensuite, les autres sont partis aussi très tôt. Et donc, ce qui fait qu'elle a plutôt fait sa vie avec moi. Oui. Donc, c'est aussi ça qui explique l'intensité de l'amour, je pense, qu'il y avait entre nous deux. Alors, je ne sais pas si vous pouvez m'expliquer ceci. Euh, le, le, ce lien que vous aviez avec lui, cette affection. Et pourtant, c'est une de vos sœurs qui vous a demandé d'écrire ce livre. Alors, donc, je vous demande quelles ont pu être ses motivations à elle, puisque c'est elle qui a été à l'origine. Oui, vous savez, quelquefois, vous avez des choses qui se passent dans la tête. Donc, l'idée d'écrire sur elle trottait déjà dans ma tête depuis très longtemps. Bon, évidemment, il y a eu, comme je raconte au tout début, il y a eu l'anniversaire de son, de son décès, qui était le dixième anniversaire de son décès. Et donc, j'ai écrit juste un post dans Facebook, comme on le fait tous. Et, et ce post-là a eu tellement d'écho, j'étais moi-même surpris. Et, et, ma sœur aussi m'a dit, mais je veux en savoir plus, nous voulons en savoir plus. Ah. Euh, pourquoi n'écrirais-tu pas sur sa vie de, de Cascas à Podor oui. C'est parti un peu comme ça. Mm -hmm. Donc je pense que ça a été un peu le coup de fouet qui a trouvé un terrain, disons, un peu, euh, qui était déjà préparé, qui était là. Et j'ai dit, ben oui, c'est vrai, pourquoi mm -hmm. je ne mhm. le fais pas Et j'ai arrêté tout à faire cessante et puis euh, évidemment, je me suis mis à l'écrire. En tout cas, quand on lit ce livre, en France, c'est l'impression que moi j'en ai eue, euh, on pense que vous avez cheminé toute votre vie ensemble. Et Dieu sait, si vous êtes parti en Afrique du Sud, au Maroc, euh, vous avez en France, vous avez travaillé un peu partout, et vous avez trouvé d'ailleurs mm-hmm. euh, là où vous étiez, mais on ne sent pas de rupture vraiment. Mm -hmm. C'est comme si votre vie était une seule vie et que vous cheminiez ensemble. Tout à fait. C'est-à-dire que je raconte un peu des pans de sa vie avec moi. Mmh. Évidemment, les pans se mettent un peu ensemble, donc on a un peu l'impression de, de, continuité. Mais c'est aussi vrai que tout le long de ma vie, elle a été centrale. Mm. Euh, C'est-à-dire que j'ai toujours été avec elle, nous nous appartenions ensemble. Mm. Donc du coup, c'était tout le temps, elle était tout le temps présente, même quand j'étais euh, même dans mes missions que je faisais sur le continent, oui. je m'arrangeais à passer dans les endroits où elle était pour la voir. Oui. Mm. Mais quelquefois c'est une semaine, quelquefois c'est trois jours. mais évidemment c'était toujours très fort donc on a un peu l'impression qu'il y a une grande continuité parce que dans le fond j'ai pas beaucoup vécu avec elle comme je le raconte un peu j'ai fait euh, l'école primaire j'étais avec ma ma tante donc ça c'est depuis l'âge pratiquement de cinq ans que je l'ai que je je n'ai plus vécu avec elle après ça a été l'école secondaire le Prytanée militaire après ça a été l'université et puis je suis parti dans le mais, monde mais on sent que ce que vous avez partagé la vie commune que vous avez est, est très forte d'ailleurs cette photo elle est de vous

donc qui trône un peu dans tous les endroits où je vais. Alors on va voir, j'ai dit vous avez partagé de, de, des moments incroyables d'ailleurs, mais très intenses. Et donc vous nous donnez l'image, le souvenir, mhm. quand vous nous racontez votre femme, votre mère, d'une femme travailleuse. Mm -hmm. Travailleuse, mais qui travaille dans la joie. Le travail oui. pour elle n'est pas en pleine somme. Elle chante quand mm -hmm. elle mhm. travaille. Absolument. Ça, je pense qu'on peut, c'est peut-être ce qui manque un peu aujourd'hui. Moi, je vois chez moi les, les personnes qui travaillent euh, sont plutôt tristes. Oui, la gueule, il n'y a, pas, pas l'entrain. Euh, même quand vous mettez un peu de la musique, elles ne, elles ne sont pas entraînées. Oui. Alors qu'avant, moi, mon enfance a été bercée plutôt, disons, par, euh, évidemment, par des coups de pilon, de, par des chants de lélé, comme on dit chez nous, des chants un peu particuliers avec, euh, avec des guitares monocordes, etc. Oui. Mm. Et les femmes chantaient. Presque toutes les femmes chantaient. Quand je dis ma mère chantait, c'est toutes les autres femmes qui chantaient en oui, réalité. Oui. Tout le monde chantait. Et il y avait des échos à ces chansons. C'était vraiment féerique quelque part. Hein. Oui. Vous avez vu que ça vous rappelait les blues, mais eux, mm. ils, ils travaillaient, euh, c'était pénible. Alors ici, il n'y a pas de pénibilité, c'était la joie. Tout à fait. Non, mais je pense, que, je pense que ben, le, le, blues, euh, dans, dans, les, disons, dans, dans l'Amérique profonde, c'était aussi des, des, Noirs de chez nous, quelque oui, part. C'est oui. peut-être aussi quelque chose qui, qui, qui vient profondément de là. Oui. Absolument. Alors, vous nous, vous nous racontez, enfin, l'impression de lecture encore une fois, cette sorte de, royaume d'enfance, il n'y a pas que Senghor qui en a, tout le monde, nous en avons, mais le vôtre vraiment, à Podor, à Tchofi, euh, Cascas, en famille, à côté d'un père hein, qui travaillait et qui bougeait beaucoup, ses affectations, il travaillait dans la poste, mais surtout aussi une mère, vous écrivez, pétrie d'amour. Oui. Elle était pétrie d'amour, cette femme, parce que Enfin, disons, moi, j'ai tout le temps été témoin de ses, de ses amours avec, les gens qu'elle connaît, qui l'entouraient. C'est pas seulement avec ses enfants, je la voyais avec ses cousines, je la voyais avec les voisines, euh, je, la voyais tout le temps en train de donner des gestes d'amour. Oui. Et, et, ça, ça m'a beaucoup marqué quand, j'étais jeune. Mhm. Euh, la vie à Cascas était ma mère y était pour beaucoup. Elle la rendait douce, elle se levait tôt et nous faisait des omelettes gourmandes avec des œufs de perdrix, sans omettre des plats en sauce avec de la volaille qui était également au menu. Le traditionnel fondé, euh, dont je raffolais, complétait ce festin matinal journalier. Vous étiez gâté. Oui, on était gâtés, c'est vrai. Mais, mais j'y repense, quelquefois, je me réveille chez moi, je, je repense un peu à ces moments-là. Oui. C'était des moments vraiment extraordinaires. Enfin, il y avait aussi les yeux d'enfant. On voyait ça avec des yeux d'enfant. Je veux dire, il y avait l'insouciance, il y avait. Euh, et elle faisait tout ça pour tout le monde. C'était oui. assez incroyable, oui. Vous dites, il a vécu à une époque où la vie était tendre et lente, comme le ah, dit Fadelja, oui, hein, votre oncle qui est un cousin, Fadelja. Uh -huh. Donc, alors, euh, il était. Mais il était inquiète. Euh, mm -hmm. La vie était tendre, lente, mais elle était inquiète, par exemple, quand vous deviez voyager, prendre le Boël Mogdad pour aller sur le fleuve. Oui, ça j'explique ça un peu parce que c'est lié à, à, des événements qu'elle a vécu dans sa chair. J'explique un peu que le Afo, oui. euh, qui, était donc, qui est donc le premier-né, oui. Euh, Néné, a, ouais. est, est, décédé dans des conditions difficiles. Mm -hmm. et, et, donc, c'était dans une pirogue, c'était euh, avec les eaux de crue. Et, et, donc elle avait peur en fait du bateau. Donc c'est resté en elle. Ce qui fait que quand je prenais le Bouel Magdal, qui est quand même un gros bateau, qui avait très peu de chances de sombrer, c'était beaucoup de recommandations, ne va pas sur le pont, reste dans la cabine. Et elle prenait même le capitaine à témoin en lui disant surveille et j'ai mis beaucoup de temps à comprendre pourquoi. Mmh. c'est en fait lié justement à ces événements tragiques qu'elle a vécu quand elle était beaucoup plus jeune. Oui. Alors mmh. quand vous quittez Podor, vous avez, vous allez, vous devez terminer, continuer les études. C'était Saint-Louis, le lycée fédéral ou alors le Britannique militaire. Et là, euh, le choix s'est posé oui. en famille. Oui. Elle n'était pas pour que vous fassiez une carrière militaire, mais elle l'a pas dit. Oui. oui. Mais parce, que, parce, que, parce que dans nos familles, vous savez bien, la décision, c'est l'homme qui la prend. Oui. C'est-à-dire la décision du père était, c'était le père qui prenait la décision. Évidemment, mon père était un peu, j'ai envie de dire, un peu démocrate quelque part, donc il voulait nous associer dans la décision. Mais pour lui, c'était, il n'y avait plus de choix quand il y avait l'armée en jeu. Oui. Donc euh, il voulait absolument que j'aille au Britannique militaire. Oui. Euh, ma mère, je pense qu'elle avait plus pitié de son petit garçon qui avait 11 ans et elle ne le voyait pas aller dans, chez des militaires. Et moi-même, les militaires que je voyais dans Podor, m'inspirait pas du tout. Je veux dire, je voyais des, des, gros gaillards en train de courir, les sacs au dos pleins de, plein j'ai connu ça après en Britannique, mais avec beaucoup d'eau. Donc, c'était vraiment des exercices difficiles. Il faut dire que j'étais un garçon très paresseux aussi. Votre père aussi, son choix a pu être euh, influencé par le fait qu'il a une carrière militaire. Absolument. À l'époque, vous savez, les grandes guerres, on les a tous mobilisés. Donc, il était effectivement Oui. Tout à fait. Alors vous, vous écrivez que vos études et vos années à Dakar, les premières, ont été difficiles. Oui. Pourquoi C'est une sorte de déracinement euh, Pourquoi Oui, mais euh, quelque part, oui. Vous euh, la famille. Euh, L'école secondaire, euh, pour, enfin, le Britannique militaire, c'est tout. Hein. C'est vraiment l'endroit

la liberté un peu retrouvée qui, qui est là, qu'on qu ne sait pas maîtriser. Et surtout, à Dakar, la vie n'est pas si facile que ça quand on est étudiant. Oui, oui. Mm -hmm. Et puis alors, euh, c'est cette coiffure afro, ah. elle disait, euh, euh, ton visage est mangé. oui. par cette coiffure. Ouais, ça, c'est l'expression poulard. Pas. Non, tu pas, pas du tout. Il disait, mais tu es devenu tout maigre, qu'est-ce qu'il y a tu, Ce port de cheveux, mais, parce que j'avais aussi beaucoup de cheveux. À l'époque, on imitait un peu les Michael Jackson. Hein. Oui. Donc voilà, c'était les, les, les, gros afros, donc j'avais le visage un peu mince mm -hmm. et il n'y avait que des cheveux. Oui. Voilà. Et il faut dire quand même, pendant tout le temps, elle a, on sent euh, dans ce que vous écrivez euh, qu'elle a eu la crainte que l'éducation qu'on vous a donnée euh, puisse être... Euh, j'étais aux orties, que vous puissiez euh, euh l'oublier. Hein? Mm -hmm. voilà, c'était presque une hantise chez elle. Oui. Quand vous allez en France et vous dites par exemple, il ne faut pas toucher à l'alcool, mm -hmm. beaucoup de choses comme ça, mm -hmm. des tout recommandations, à, tout à fait. Faut pas mentir. Tout à fait, tout à fait. Bon, au début, c'est les petits sermons, tu vas, ben, quand j'étais déjà à l'école primaire, hein, tu respecteras ta tante, tu feras ceci, tu ne te bagarreras pas, etc. Mm -hmm. Au fur et à mesure que, que que je grandissais, évidemment, d'abord j'en étais un peu plus conscient, et puis les recommandations devenaient plus fortes. Et comme j'explique un peu par, par rapport à l'alcool, il y avait en fait une explication derrière, parce que moi-même j'étais surpris qu'elle me le dise, parce que c'est la première fois qu'elle me le disait, en sachant qu'au Britannique, les, les opportunités étaient beaucoup plus grandes. Je me suis dit, mais pourquoi maintenant que je pars en France, elle me dit ça alors d'abord, je me suis dit, bon, peut-être qu'elle s'est dit qu'en France, je suis trop oui. loin socialement, personne ne peut me contrôler, donc je peux faire un peu tout ce que je veux. Et à partir de ce moment, il met un peu les garde-fous. Je raconte aussi que, que, que, que les Harmi Djidjididi, qui sont un peu les principes, les, valeurs de, euh, les valeurs un peu de, comportement, oui. Euh, c'est aussi beaucoup d'interdits. Oui. Et je pense par rapport à ces interdits-là, elle a rajouté un peu ces interdits d'alcool et autres. Voilà. ces, ces interdits, euh, vous en parlez euh, par anticipation par rapport à ça. On, on peut en parler. Hein. Euh, nous ne volerons pas, nous ne mentirons pas, nous n'aurons jamais peur, nous ne trahirons pas, nous n'aliénerons pas les liens de parenté, nous ne romprons pas les pactes de promesses. Tout sera équitable car nous ne léserons personne. Oui, oui. Ça, j'en parle parce que à certains moments, même jeunes, sans, sans comprendre ça, sans, sans le savoir, mmh. Euh, elle aimait à jurer sur ça. Que, oui. Quand elle me disait quelque chose et que euh, moi je disais non, t'es sûr, etc. Ou quand j'avais une quelconque suspicion, elle me disait Harme Jam Djedidi. Harme Jam Djedidi, ça veut dire sur, sur, les sept principes justement de, de, de, de ça. Et, et dès qu'elle disait ça, sans que je comprenne, pour moi c'était clos. Oui. C'est-à-dire pour moi c'était ok, elle avait raison ou, ou oh, c'était comme ça, c'était la loi de la nature. donc c'est un peu une sorte de, de code d'Hammurabi hein, qu'il y a là et, et, où il y a des interdictions et sans trop comprendre, on y souscrit. Et, et vous, vous aviez oui. beaucoup, de, beaucoup de conversations, vous expliquiez les mathématiques. Ah. Vous ne comprenez pas, vous travaillez en Renault en France et, et pensez que vous, vous, vous, fabriquez une voiture, c'est comme ça qu'elle croyait que Il oui, nous a posé une question comme ça tu, Oui, parce que... Tu sais, tu sais je... fabriquer une voiture Oui, pour elle, c'était ça. Je travaillais chez Renault, ça veut dire que je savais fabriquer une voiture. Oui. Bah, évidemment, elle, elle, elle, elle n'imaginait pas différents métiers qui concourent à oui. fabriquer une voiture. Euh, et donc, euh, elle, ne voyait pas son, son, son, fils, avec ses petites mains, si paresseux surtout, en train de fabriquer des voitures. Et donc, j'ai dû lui expliquer un peu tout ça. Et, et, ce, qui est, ce qui est étonnant, c'est-à-dire qu'elle avait une elle, elle, écoutait avec curiosité. Je pense que c'est vous qui m'aviez dit ça une fois, lire avec curiosité. Elle, c'était plutôt regarder, elle écoutait avec curiosité. C'est-à-dire dès qu'elle entendait quelque chose, euh, elle le fond de cette chose-là. Elle ne s'arrêtait pas à « Ok, tu travailles chez Renault, et, et, et voilà, c'est tout ». Non, elle, voulait savoir qu'est-ce que tu fais, comment ça se passe, etc. Elle était intéressée. Elle était intéressée. Je ne comprenait pas quand vous par exemple. Je ne sais pas en fait, je ne suis pas sûr qu'elle ne comprenne pas. <laughs> oui. J'ai envie de dire que c'est vous qui le dites. Non, elle était curieuse et, et, et disons qu'elle elle se taisait, elle me regardait et, et j'essayais d'expliquer avec des mots évidemment en poulard, qui, qui, ne traduisait pas toujours, mais je faisais des périphrases. Mhm. Je lui explique, par exemple, comment un avion fait pour voler, je lui explique les forces mm -hmm. bateau fait pour ne pas sombrer, parce qu'elle posait ces questions-là. Ça, je ne l'ai pas dit à ma tante, parce que ma tante ne m'a jamais posé les questions. Oui. cette curiosité qu'elle avait. Et, donc, voilà, on parlait de logique mathématique et autres. Et, vous avez que vous lui faisiez écouter les Oui, alors je pense que dans les deux sens. Dans okay. le fond, moi j'écoutais juste ma musique un peu comme, comme oui. tous les étudiants quand on va en vacances, on, on, on, on branche la sono et on écoute. J'ai l'impression qu'elle elle était plutôt attirée par certaines sonorités. Et là, ce que je raconte, par exemple, il aimait beaucoup Bob Marley, je ne sais pas trop pourquoi d'ailleurs, mm -hmm. mais il n'aimait pas Led Zeppelin, il n'aimait pas Jimi Hendrix, oui. euh, il n'aimait pas James Brown. Oui. Mais les, les, sonorités un peu plus jamaïcaines, un peu plus salsa aussi, oui. c'était des choses sur lesquelles elle me demandait de les remettre, ces chansons-là. Vous écrivez, cela se rapprochait du lélé diffusé par Radio Mauritanie qu'elle aimait écouter les après-midi. Elle aimait les sons dépouillés, une voix, un hodo. Mm -hmm. Elle aimait moins la guitare euh, de Jimi Hendrix ou de Led Zeppelin. Absolument. Voilà. Oui, tout elle avait ses goûts musicaux, bien ouais. à fait. Je pense qu'on peut le rapprocher aussi quand je disais qu'elle chantait quand elle pilait le mille. Oui. Euh, parce que c'était des chansons simples, c'était juste des mots et, et elle aimait cette sonorité-là. Donc elle aimait un peu la simplicité du, de la chanson avec, avec un son qui l'accompagnait. Oui, oui. euh, pas des batteries, pas, pas, tout ce qui allait ensemble. les, les, les, les, comment on dit ça encore, la synchronisation de plusieurs instruments, oui. euh, et, il n'y était pas trop, il n'était pas trop pour ça. Oui, il y a, y, a, y a, des choses que, qui m'ont que j'ai moins aimé dans ce livre parce que bon finalement et, et vieilli c'est la vie et vieilli vivre à Dakar à Thiès et, et, et soigné votre père est resté à votre, votre, père, on ne pouvait pas le faire sortir de Podor. Non. Il était dans la politique deux ou trois jours. Et puis cette complicité avec votre mère aussi, mm -hmm. quand vous souteniez un candidat politique, elle a, elle a payé des gens de l'argent pour qu'ils votent pour, pour, pour, votre candidat. Oui, elle a fait ça. <laughs> achat de conscience, dit-on ouais, aujourd'hui. Achat de conscience, ça s'appelle, oui. <laughs> Mais elle n'y voyait pas de mal. Hein. Pour elle, c'était tout à fait normal de, oui. d'inciter un peu des gens à faire quelque chose. Oui. Je, je pense que c'était il pense le, le candidat de son fils. C'était le candidat de son fils voilà oui. elle c'est la seule chose à faire ça, ça fait un peu du net au Bandung quelque oui, part, mais c'était le candidat de son fils elle, elle supporte sans, oui. sans trop réfléchir celui que supporte son fils. Alors je ne sais pas qu'est-ce qui vous est passé dans l'esprit parce que vous me dit vous écrivez un moment vous lui avez demandé euh, si elle partait euh, où voudrait-elle être euh, inhumée? Oui, ça c'est des moments difficiles. C'est une question dure. C'est une question dure. Comment? C'est une question difficile. Bon, faut dire que j'étais pas trop là, donc euh, je, je voulais quand même, euh, je, je, voulais quand même avoir un peu des éléments d'elle, de, de, ce qu'elle me dit, euh, parce que je ne faisais pas confiance à ce que toute autre personne me dit de ma mère. Oui. Euh, c'est un peu, c'est peut-être un gros défaut, mais, mais j'ai ce truc-là, c'est-à-dire que moi, je ne, euh, je ne crois qu'en ce qu'elle me dit en réalité. Oui. Et donc, je voulais avoir son, son mot sur ces choses-là. Oui. Parce que moi, je partais, je restais six mois, un an, avant de revenir à Dakar, sur Dakar. Et donc, je voulais savoir un certain nombre de choses. Et puis, elle était aussi malade. Oui, c'est ça. Évidemment, c'était dur parce que je lui demandais ça quand elle était malade. Et il y a même vu, comme je le raconte un peu, est-ce que je voyais des signes de faim dans, dans ma question C'est cela. Voilà, je, je l'ai un peu rassuré évidemment ouais. et j'ai voulu savoir où est-ce qu'elle voulait être enterrée. C'est exact. Oui, c'est cela. Et curieusement, elle a dit Thiès. Je, je m'attendais qu'elle veuille retourner oui, au Fouta, mais non, elle a dit Thiès. Elle a dit Thiès. Moi-même, j'étais surpris. C'est oui. pourquoi je dis aussi dans le livre, j'ai marqué un temps d'arrêt Euh, j'ai pas voulu tout de suite dire pourquoi, dans, un certain sens, pour ne pas la heurter. J'ai d'abord voulu comprendre. Oui. Et évidemment, il y a beaucoup de choses qui me sont revenues aussi. Et après, je, je, lui demandé pourquoi Jess. en ce moment, qu'elle m'a dit, mais j'ai des gens là-bas. une amie là-bas, celle que j'aime. Et je veux être enterré parmi les miens. Mhm. Je vous en prie. Vraiment, touchant. En tout mm cas, mhm. moi, ça m'a <laughs> beaucoup touché. Mhm. Évidemment, euh, toute personne parce que on a des liens particuliers avec euh, nos mères. Mhm. Merci de m'avoir reçu. Merci. Merci de m'avoir permis d'elle encore une fois. Merci, Merci beaucoup. Donc euh, euh, Sow, ma mère tout simplement, hein? mm -hmm. son parcours de vie Merci. avec sa maman. Merci d'être venu nous en parler. Nous passons à la troisième partie de cette émission Expression libre. Et nous allons parler du livre de Banticu Ducuré, qui est journaliste, mais qui a fait beaucoup d'autres choses. Nous en parlerons au cours de cet entretien-là. Son livre Sans domicile fixe, l'autre visage de l'Amérique. Alors, vous montrez dans ce livre, merci d'avoir accepté notre invitation, vous montrez que les États-Unis, présentés comme le pays de l'opulence, hein, le pays le plus riche dans le monde, a aussi ses pauvres, ses homeless, comme ils disent là-bas, ces sans mhm. dans la et dans, un dénuement total. Quoi. Oui. Euh, merci Sada, c'est avec une joie sans doute euh, égale à la vôtre que je me félicite de cette occasion pour parler de ce livre. Euh, vous avez raison, ce qui m'a poussé à écrire ce livre est que c'est vrai, l'Amérique c'est le pays le plus riche dans le monde, c'est le pays le plus fort. Mais malgré ça, il y a des sans-abri. Oui. Il y a des sans qui mangent dans les poubelles et qui dorment dans les rues. Donc euh, c'est C'est une sorte de contradiction. Oui. Alors qui m'a qui a ravivé ma curiosité pendant mes déplacements quand je travaillais. c'est ça qui m'a poussé à écrire ce livre. Montrer l'autre visage de l'Amérique qu'on ne connaît pas. On ne connaît que le rêve américain se réaliser là-bas, alors que y a des gens qui vivent dans la misère la plus sombre. Oui, la misère la plus sombre et comme dorment dans les rues, qui mangent dans les poubelles. parce que euh, parfois même les Américains qui travaillent, il y a des sans-abri qui travaillent ou bien qui travaillent, qui n'ont pas les moyens de payer les loyers. Oui. Alors, tellement que le loyer est cher dans certaines villes et surtout les grandes villes comme oui. euh, San Francisco, Californie, euh, Miami, oui. euh, Houston, là où la vie est très chère, même les gens qui travaillent pas, ne, ne peuvent pas oui. payer les loyers. Alors, euh... vous vous êtes familiarisé avec ce phénomène parce que vous avez travaillé euh, comme interprète en cette langue. Oui. c'est beaucoup. Oui, c'est vrai. Euh, euh, au département de la justice oui, américaine. Oui, oui, au département de la justice, département de la justice audiences américaine. pour les, les asiles, les expulsions. Voilà, voilà ils ont, une partie qui s'occupe des immigrés, oui. ils recrutent les linguistes pour pouvoir interviewer ou bien aider les les immigrés qui arrivent aux États-Unis qui ne parlent ça. pas anglais. Donc la plupart, il y a des il Africains, il des Arabes. Euh, euh, oui, donc, vous connaissez l'arabe sûrement. Oui, oui, oui, je connais l'arabe, c'est d'ailleurs ma première langue, si, vous voulez, Alors, euh, quand on vient pour interview, pour interroger ces gens ils invitent ou bien ils convoquent des ils des linguistes comme nous pour venir jouer comme un facilitateur c'est cela alors euh, ce sont ces déplacements qui m'ont permis oui. de rencontrer ces sans-abri c'est pas seulement quand je pars quand je finis de travailler si j'ai le temps par exemple si mon vol est à 19 et que je finis à 1h du je me déplace je cherche les, les sans-abri, je vais voir où ils sont. Oui. Bon, quand je les vois, parfois je les interroge, comment vous êtes devenus des sans-abri, oui. qu'est-ce que vous faisiez comme travail avant ça, et comment est-ce que vous vivez maintenant. Alors ils me racontent leur vie. Ce sont ces interviews que j'ai rassemblées. Oui, on a vu que vous êtes allé dans plusieurs villes et que vous avez fait euh, euh, votre métier, vous êtes journaliste aussi, mm -hmm. donc des interviews, vous avez pris des photos d'ailleurs. C'est oui. n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-unes vous avez euh, dans ce livre-là. Mhm. Alors, avant tout, il faut savoir que le nombre des sans-abri qui a baissé en 2007 a augmenté euh, depuis. En il y a une baisse, mais depuis, ça augmente, Oui, ça ne fait qu'augmenter. Et même pendant mes voyages, chaque fois que je visite une ville, quand je reviens cinq mois après, quand je fais des sondages, ou bien quand je demande aux mêmes sources qui Parce que euh, les conditions deviennent de plus en plus difficiles. Oui. Alors ces gens se trouvent dans ces conditions qui leur mm. on voit que ceux qui, est, ceux qui sont touchés majoritairement, mmh. 50% j'arrondis, vous êtes 48, euh, c'est les Afro-Américains, mm. les Noirs, mm. 7 pour cent seulement les asiatiques moins de 1 pour cent. Mm-hmm. bon ça ça reflète la réalité des oui. des États-Unis mm -hmm. parce que les noirs sont euh, moins avantageux. Oui. Euh, parce que vu la, les conditions dans lesquelles ils sont venus aux États-Unis euh, c'est différent des conditions dans lesquelles euh, les blancs sont venus. Mm -hmm. ok les asiatiques aussi ils ont des conditions très différentes de euh, des autres. Américains parce qu'ils sont solidaires. Oui, ils ont cette et, solidarité. Et souvent, là. les Asiatiques, quand ils viennent aux États-Unis, ils ne viennent pas comme euh, des immigrés qui viennent de, de l'Afrique ou bien de, parce qu'ils viennent, quand ils viennent, ils ont déjà des familles ou bien des sociétés oui. créées par leur parents ou bien leur pays qui les accueille, oui. qui les encadre. Oui. Et, et pas comme un aventurier africain qui vient, il ne m'a pas où aller. avant de s'installer, il a des problèmes. Mais les Asiatiques, euh, souvent, avant de venir, ils ont déjà euh, des contacts, ils savent où ils vont. Alors c'est ça qui fait qu'il euh, n'y a, pas beaucoup de sans-abri. Dans ils créent même des Chinatowns, où ils vont. Ah, où ils vont, ils ont des Chinatowns, oui, où, où, où ils embauchent que des Chinois. C'est très rare de voir dans un restaurant chinois un Africain qui travaille, même comme en plongeur, c'est difficile. Alors la raison, évidemment, c'est la pauvreté. Mm -hmm. hein? Vous écrivez 60 millions de personnes se couchent le ventre vide chaque soir et un enfant sur cinq souffre de la faim. Mm-hmm. c'est à Washington. de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. À San Diego, l'une des villes les plus prospères, une personne sur souffrent de la faim. Environ 2 millions de personnes de la population américaine avaient utilisé des abris ou des programmes de logement de transition en 2018. Oui. Donc c'est la pauvreté. La... Tout le monde est touché, comme vous l'écrivez, beaucoup de personnes, blancs, noirs, euh, surtout les noirs. Surtout les Noirs, parce que comme je vous l'ai dit, la, la, les conditions dans lesquelles les Noirs parmi ces Noirs, vous pouvez me, me demander sans doute, euh, certains qui me demandent, est-ce qu'il y a des Africains qui sont des, des, des sans-abri africains Est-ce qu'il y a des sans-abri sénégalais J'ai des sans-abri africains, mais leur nombre proportionnellement est plus inférieur que les autres ah sans-abri ah, africains. Pourquoi Parce que les Africains sont solidaires. la même solidarité qui existe en Afrique. Oui. Quand on vient en Afrique, on ne remarque pas beaucoup des, des sans-abri, bien que la plupart des pays sont des pays pauvres. Mais à cause de cette solidarité, on ne voit pas euh, beaucoup de sans-abri au Sénégal. Oui. Bien qu'il faut l'avouer maintenant, je vois plus de sans-abri, de, de, plus en plus de sans-abri au Sénégal. Bon, c'est cette même solidarité que les Africains ont en Amérique qui euh, les aide à ne pas être sans-abri. Il y a des Euh, les moyens de se payer le logement, mais ils connaissent un cousin, un ami, bien, bien même un Africain de notre pays qui les accompagne. Oui. Mais ils peuvent aller dans un pays euh, ou bien État très loin de là où se trouvent les, les Africains. La plupart des Africains se trouvent euh, à Washington, euh, New York, Los Angeles. Mais quand ils vont dans un coin comme Hawaï, bien, ou bien Seattle, ou bien Alaska, Là, il n'y a pas beaucoup d'Africains là-bas, tu vois. Donc, si tu as des problèmes là-bas, c'est très difficile de trouver quelqu'un qui va t'aider. Donc, euh, du coup, tu vas devenir un sans-abri. parmi ces raisons, il n'y a pas seulement la pauvreté. Mhm. Vous avez noté, a attiré ma curiosité, la violence, euh, la violence C'est-à-dire dans, le, dans la famille, les gens qui sont violentés mhm. dans la famille et qui sont obligés de quitter leur famille pour éviter, pour Oui. Euh, éviter la violence. Alors, c'est quoi C'est des femmes, c'est des enfants Des femmes, des enfants. Sûrement pas des hommes. Oh oui, ça des hommes. Ah, des hommes. Parce, que, parce que quand il y a une violence dans une famille, mm quand la police vient, alors euh, ce n'est pas la ce n'est pas la femme qu'on ah, oui, fait oui, sortir oui, de la maison. C'est l'homme qui devient victime euh, de cette violence familiale. Euh, ce n'est pas la femme. il y a d'autres aussi qu'ils sont devenus des sans-abri parce que quand ils sont dans l'armée américaine, quand ils finissent euh, l'armée, oui. quand ils viennent, c'est très difficile de s'intégrer dans oui. la société encore. C'est les vétérans voilà. qui viennent du Vietnam, du Golfe, euh, de l'Afghanistan, tout ça. Voilà, ou euh, des vétérans qui, oui, des vétérans qui, ne, qui ont des problèmes pour se réintégrer dans la société. Oui. Alors, euh, ces gens-là sont des deviennent des réfugiés. Oui. Mais il faut remarquer que parfois, il y a des, il y a des sans-abri qui sont devenus sans-abri parce qu'ils ne veulent pas aller vivre dans les refuges. Oui, les il refuges des, oui, y a des refuges qui existent, oui. Il y a des refuges qui existent, mais certains sans-abri ne veulent pas y vivre. Pourquoi Parce qu'ils se disent que, bon, eux, ils n'ont que la, le, pot de, de, le pot de la liberté qui leur reste. Ah qui est de faire ce qu'ils veulent, oui. dormir quand ils veulent, ah oui. manger ce qu'ils veulent, aller où ils veulent. Mais quand ils vont dans ces abris, il y a des restrictions. il faut, manger à cette heure-ci, il faut se à cette heure-ci, il faut se coucher à cette heure-ci. Alors, afin de ne pas perdre, pour ne pas perdre cette liberté, ils préfèrent ne pas vivre dans les abris. Ils sont. Oui, ils vont parce il y a des accueils organisés par la municipalité, les municipalités, parfois aussi les religieux. Mais mmh. les religieux, il y a des conditions, euh, il faut être majeur et ne pas avoir d'infraction de, de, nature sexuelle. Hein, oui. En ce moment-là. Et, et, là, ils donnent, euh, vous indiquez, 1000 repas par jour, 200 lits avec euh, 100 nattes. Donc, oui. on peut dormir et manger. Oui, ça c'est euh, à Denver. Oui. Euh, il y a une société kii est une partie d'une église, hein, oui. alors qui accueille des gens, ils ont des programmes, ils aident euh, les sans-abri à, oui. à, être, euh, à retourner dans la société, mm-hmm. mais ils ont leurs conditions. Il faut ça. que tu sois chrétien, euh, tout d'abord, tu peux pas être musulman et aller là Mais malgré ça, euh, quand tu viens quand même, on te donne à manger, on te donne à boire. Mais tu peux pas, pour être, euh, pour t'inscrire dans leur programme, il faut que tu sois un chrétien. C'est cela. Mm. Alors, il y a aussi, euh, évidemment, certains, 50%, la moitié des mm. troubles mentaux est dû à l'usage d'alcool, l'abus, devrais-je dire, mm. la drogue aussi. Mm. Oui, le... Tous, ce sont des troubles. Alors, les vétérans qui viennent de la guerre, on peut comprendre. Mais, par exemple, il y a des gens qui travaillent, qui n'ont pas assez d'argent pour payer le loyer. Mm. Ils habitent dans la rue, ils se oui. retrouvent dans la rue. Oui. Alors, une fois qu'on est sans abri, donc euh, qu'est-ce qu'on fait On essaie de survivre, non seulement physiquement, oui. mais mentalement. Oui. qu'est-ce qui les aide à continuer C'est l'alcool ou bien la drogue. C'est euh, euh, par exemple, à San Francisco, j'ai interviewé une euh, infirmière. Je lui ai dit, mais pourquoi à San Francisco, proportionnellement, c'est la ville là où il y plus de sans-abri Elle me dit que, bon, parce que San, San Francisco avait un programme pour les sans-abri où ils avaient des hôpitaux, des abris, où ils encadraient les sans-abri. Alors ils étaient, on les soignait quand ils tombent malades, on leur donnait à manger, on leur donnait une place pour dormir. Alors lorsque les autres villes ont vu ça, alors ils ont envoyé le sans-abri, on, on, leur donnait des euh, billets de bus oui. pour aller à San Francisco. Oui. Lorsqu'ils sont venus à San Francisco, oui. alors, en fin de compte, le programme est inondé. Mmh. Alors, euh, ils étaient obligés de fermer. Mmh. Lorsqu'ils ont fermé, ces gens se sont trouvés dans la rue. Alors, ils se sont trouvés dans la rue, ce qui augmente le nombre des sans-abri. À cause de leurs conditions euh, mentales, alors ils, ils deviennent fous Oui. Et c'est ce qui augmente ce nombre des malades mentaux, mentaux voilà. dans, dans, les, alors, parmi les sans-abri. Alors, vous les, vous, dans le livre, on va vous les trouver, vous prenez des photos, évidemment, à chaque fois, vous donnez. Mm. Mais il y, y, a eu. Euh, vous avez rencontré un monsieur mm. et il vous dit Pourquoi tu veux une photo de moi euh, Il était méfiant. Vous lui dites J'écris un livre sur les sans-abri. Mm. Il dit Je ne suis pas sans-abri parce que la terre est ma demeure Et il dit, tant qu'il y a la terre, j'aurai là où vivre. Je trouve ça, c'est beau, c'est optimiste, c'est philosophique. Oui. Tant qu'il y a la terre, j'aurai là où vivre. Voilà, c'est philosophique, c'est philosophique parce que, bon, c'est sans abri. Ils vont jusqu'à un point où ils euh, se trouvent qu'ils sont confortables dans leur situation. Oui. Ils ne sont, pas, ils sont pas tristes Oui, ils ne sont pas jaloux, ils ne rêvent pas d'être autre chose, ils sont contents dans leurs conditions. Oui. Alors euh, j'ai rencontré un gars, je lui ai dit que mais pourquoi tu ne pas dans le refuge, pourquoi tu, tu, tu, tu, comme tu es, tu peux aller chercher de l'aide. Il dit non, c'est comme ça que Dieu m'a créé. Il m'a même euh, défié, il m'a dit que mais <laughs> pourquoi tu es là Pourquoi tu n'es pas en Afrique <laughs> oui. Pourquoi tu n'es pas en Afrique Comme il a raison. C'est le destin qui t'a amené ici. Moi aussi, c'est le destin qui a fait que je suis sans abri. Oui. Donc je suis content comme, je suis. rencontre un autre sans abri qui me dit que lui, il vaut, ah, cesser d'être sans abri comme, comme ça. Il vaut aller avec sa, fiancée en Israël. C'est un noir. Oui. noir, un noir. Et puis va aller en Israël pour aller Euh, se marier là-bas et maintenant il veut mener une vie correcte il est fatigué de oui ça fait partie de, des choses que j'ai aimées voilà. et puis il y a aussi alors là c'est c'est plus tragique hein, mm. euh, ce monsieur qui dit euh, euh je qu'il mange je mange ce que vous jetez dans les ordures mm. mais c'est ah. quand même en même temps c'est c'est une dénonciation du du gaspillage alimentaire, je mange ce que vous jetez dans les dents. Oui, c'est une euh, pancarte qui m'a beaucoup touché mm -hmm. parce que quand je viens, euh, souvent quand je pars, euh, je, je, vais à mon hôtel, je, je, je mange ou bien je sors, je vais me promener. Alors en me promenant, je prends des photos. Quand j'ai fini de prendre les photos, je, je, bon, je me promène seulement sans prendre des photos parce que j'ai un budget. Parce que chaque fois que je, je prends une photo, je donne de l'argent, j'offre un dollar ou deux dollars. Et j'ai un budget, je me suis dit, aujourd'hui, je vais donner 10 ou bien 20 ou 15 Alors, quand mon budget est fini, j'arrête. je retourne à l'hôtel, je laisse mon appareil là pour ne pas être tenté. Mais lorsque j'ai vu cette euh, qui dit euh, je mange ce que vous jetez, Alors ça m'a beaucoup touché. J'ai oui. couru oui. à l'hôtel, je suis chercher mon appareil parce que je me sentais comme un chasseur qui, qui n'a pas de pistolet ou bien qui n'a pas d'arme. Mm -hmm. Je suis retourné à l'hôtel, j'ai pris ma photo, je suis, j'ai couru encore, je suis venu. Heureusement, mm -hmm. il était là, j'ai pris la photo. Je crois que c'est la, c'est la, euh, la pancarte qui m'a oui. touché. Il y a d'autres qui disent oui. seulement aide. Il y a oui. d'autres qui disent que j'ai perdu ma maison. Il y a d'autres qui disent que j'ai perdu mon emploi. Mais là, j'ai perdu mon, mais là, c'est Une, Aminata, là, c'est une dénonciation de la société de gaspillage. C'est le gaspillage là qui, qui est dénoncé. Tout à fait. Hein? Et, et, je comprends pourquoi vous avez senti le besoin d'écrire ce livre-là. Mmh. C'est très frappant le contraste. Mmh. Moi, j'ai visité une fois Chicago mm. en 2012. Et j'étais tellement impressionnée par tous ces gratte-ciel, oui. la North Michigan Avenue, oui. la Trump Tower, NBC, c'était extraordinaire. Oui. Mm. Mais à chaque coin de rue, il y avait un SDF. Et quand on sait combien il fait froid là-bas, à côté du Lake Michigan, le pont qu'on a franchi là-bas, moi j'avais excessivement froid malgré le manteau que j'avais. Il y avait quand même un SDF. Et il portait juste ce qu'on donne aux personnes. C'est une sorte d'aluminium jaune. Mm -hmm. Quand il y a des, euh, des incendies, c'est ce que les pompiers oui. mettent là. C'est tout ce qu'il avait mis. Et c'est le genre qui habite là-bas parce qu'il avait sa, sa, sacoche à côté. Donc je suis passée à côté. Ça m'a trop frappée. Je me suis dit, comment cette personne peut passer la nuit Les températures sont négatives en décembre quand j'étais allée là-bas. Ça contraste trop avec le, le, la richesse de ce pays-là. On se dit, il doit y avoir un système pour empêcher que des personnes, avec toute cette richesse qu'il y a, puissent se retrouver en dehors. Mais je comprends mieux ce que vous avez expliqué, qu'il mmh. y en a, c'est la seule parcelle de liberté qu'il leur reste, comme mmh. vous l'avez dit. Ils peuvent dormir là où ils veulent, manger ce qu'ils veulent, parler à qui ils veulent, sans être dans un foyer où il y a des règles strictes. Effectivement, je, comprends que vous dites. aussi la violence. la fois, violence, oui. chaque jour, le mmh. soir, quand je regardais la télé, on parlait de meurtres de la veille. Hmm. On montrait des meurtres tous les, tous les soirs, tous les soirs, des meurtres dans la ville de Chicago. Mm. Et j'ai compris que la violence existait vraiment aux États-Unis, que ce n'est pas seulement des films, il y avait des morts presque chaque jour. Oui. Parlant du froid. Et par... oui, vous dites le froid tue beaucoup, comme la chaleur oui. en tue beaucoup. Parmi ces gens-là, ils sont décimés vraiment. Oui, jusqu'à présent. température élevée ou trop basse. Oui. L'autre jour, j'ai parlé à des gens, à des amis qui sont à Phoenix. Ils ont dit qu'il y a des gens qui meurent à cause, de, à cause de la chaleur. Oui. Et parlant du froid, à New York,

peut-être, euh, je ne sais pas, vous me direz pourquoi je, je parle de ce livre, pourquoi je parle des sans-abri, alors que c'est un phénomène mondial. Partout oui. où tu vois, il y a des sans-abri. Euh, en Arabie Saoudite, au Nigeria, en Israël, où tu vois, il y a des, sans-abri. Mais maintenant, prenons l'exemple, par exemple, d'un pays du Golfe, là où il y a des, malgré cette richesse, il y a des pauvres, il il y a des gens très très pauvres. Nigeria, la même chose, disons Israël, la même chose. Mais pourquoi donc euh, parler de l'Amérique oui. Pourquoi parler de... Ah, c'est mondial, mais pourquoi on choisit de parler de l'Amérique On choisit de parce que l'Amérique, c'est dire le pays le plus riche du monde, le pays où la justice, là où il y a la démocratie. Donc s'il y a ce genre de situation, on voit des gens qui vivent dans des conditions pareilles, donc ça attire notre attention ça nous, on, on, se pose la question. Moi, c'est cette curiosité qui m'a poussé en premier lieu de prendre des photos, ensuite de faire des interviews avec les sans-abri d'abord, ensuite avec les, les thérapeutes, avec des docteurs, avec tous ceux qui s'occupent des, des, des sans-abri pour pouvoir parler des sans-abri. D'accord. Mm. Merci, merci. Euh, vraiment, euh, Bantigui de Corée. d'être venu. Je rappelle que vous avez longtemps vécu aux États-Unis, vous êtes journaliste, vous avez même euh, travaillé dans l'armée américaine. Vous êtes allé dans le Golfe, n'est-ce pas Oui, oui, voilà. je, suis, je, suis, allé en Arabie Saoudite, au Koweït, euh, en Irak. Euh, voilà, c'est cela. Accompagner les, les, voilà. les, forces aériennes américaines voilà. en tant que conseiller et interprète. Voilà, et là, vous nous montrez le visage, l'autre visage des États-Unis, que les gens ne connaissent pas, parce que le rêve américain mhm. attire beaucoup Oui. Ce n'est pas un mirage, j'ose pas dire ça, mais vraiment il a un pouvoir attractif sur la mentalité des gens extraordinaire, aussi bien des jeunes que des gens mmh. et qui, sont, euh, qui sont moins jeunes et euh, peu importe, euh, des gens instruits, des gens, tout le monde rêve oui. d'aller aux États-Unis maintenant. Oui. Et ce n'est pas tout rose. Hein? Ce n'est pas tout rose. Il, y a des... Ils ne s'attendent pas à des situations voilà. comme ça. Voilà. Mmh. Merci beaucoup. Merci, merci à tous ceux qui ont euh, animé cette émission euh, Impression de ce jour. euh, Nina Wad avec son livre de Femmes trois âges, docteur Chertidiane Sow avec ma mère et vous avec sans domicile fixe, l'autre visage de l'Amérique. Merci aussi ceux qui sont venus nous tenir compagnie pour cet après-midi d'enregistrement. Quant à vous, merci pour votre fidélité. On se retrouvera dans 15 jours pour une autre émission Impression.